dama doon am accident ñu yemale ko foofu Minikat. Hah? started then to go to the up and ask. suñu day tey bi daje jàmm la ni ko daa baaxoo di defee balaa ñëw woti bitse armée ne dañuy def li ñuy orientation budget ok te yaakaar naa orientation budget mooy daje ñu gindi ñu gindee ci fan leen bëgg jëmale budget bi ñu war a wote loolu mooy sabab ñu woo conseil municipal bi woo dëkk yi woo service yëpp woo notable yi ndax orientation yëpp ñoo ci am kàddu xelaat wax ñu wolof jaay di waxit nag man ngaa wax loo man waaye bu jëf jotee li nga man rek ngay waaye xelaat yooyu ci leneen mën a sukkandiku man ci tëgg bit si bi su buñ ci tëggee bit si bi su yàlla dogalee xelaat yooyu yëpp bit si bi man koo sotal mu sant yàlla mu sotal xelaat yi boo ko bit si man du sotal ñu ne bi ñu defee orientation xalaatoon leen fukk juróom leen mën a sotal juróom leen sotal eh, moo tax ba ñuy woo acteurs yëpp te jàpp naa ni ma gisee salle bi daanaka ni ñu ko soxlaa woon ñëpp teew la buy ci wàllu gum rek bu ci wàllu santé buy ci wàllu éducation secteur bu ma a doon rek mel ni gis naa leen ci salle loolu mooy ordre du jour bi ñu jégalu bu baax na te xam ne ñu ne bu ñu naan bu ñu jëlee nga xam ne daan mooy loolu moo ñu daan tax. di nuyu conseil municipaux yëpp di nuyu ñi fi ñi nga xam ne ñoo fi toogal projet yi ak programme yi di nuyu chef de service yi fi ne di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo fi toogal mbootaay yi di nuyu képp koo xam ni ñëw na fi tey defe naa monsieur le maire wax na ko léegi daje tey bi du guléet am nañ tradition di ko def toujours suñu excès fii soo xoolee calendrier budgétaire ni mu tëddee mois de novembre mois d'octobre ou wala mois de décembre avant ñuy voter budget dañuy am luñ tuddee débat d'orientation budgétaire soo xoolee depuis 2014 ñun nag sunu débat bi dafa xaw a wuute ak niñ ko daa defee parce que defe naa ni umpu leen ni 2000 dafa am réorientation boo xam ne xaw a particulier ni ko wuute yeneen orientation parce que soo xoolee équipe municipale bi mën naa ni ren 2019 incha allah su dara changé wul mooy seen dernier budget mooy seen dernier budget parce que en décembre 2019 ak beneen yi daa boo xam ni moom moy li nga xamni mom lañ déroulé le budget participatif c'est soo xoolee euh, ñu amul lenn lo xamni dañ koy jég jég euh, jalgati wala jéggi jéggi si walu li nga xamni mom la code bi wax par rapport au budget participatif ak par rapport au budget classique si nan la ñuy orientation budgétaire parce que orientation budgétaire bi li aboutir moy ñu am un document budgétaire bo xamni day nekk un document budgétaire participatif parce que toujours dama koy faral di wax beaucoup de collectivités territoriales un problème mooy ñoom dañuy appesantiru si besoin yi si lan la def si lan la def lan la def mais li ngay def il faut nga xam d'abord fan nga koy jëlee d'abord Oui, l'argent li tubaab di tuddee le nerf de la guerre bala ngay wax ay dépenses d'abord il faut nga xam man limay may dépenser fan laa koy jëlé il faut nga am ben politique de mobilisation des ressources Ça. recettes

parce que commune su amul su amul recette du mën a fonctionner su amul recette du mën a fonctionner lii mooy situation recouvrement à la date du 28 novembre 2018 si vous di pour savoir exactement est-ce que nous liñ defoon atteindre nañ objectif wala atteindre notre objectif soo jëlee li si jiitu mon résultat fonctionnement reporté toujours damay faral di ko wax suñuy élaborer Le résultat fonctionnement reporté mooy de ce budget des fois da ngay gis des territoriale yoo xam ne duñ résultat de fonctionnement reporté dañuy li ñu tuddee rouges. mais nous avons yàlla may nañu au moins 6 500 501 673 yoo xam ne biñ joxalee budget bi ba mu jeex desoon nañ 6 millions 501 673 moom la reporté woon budget 2018 Nous avons des frais de bornage Le woon nañ budget 2018 bi nii 5 millions de francs de bornage nous sommes à hauteur de 3 millions 255 000. nga jël pourcentage bi téeméer 65 atteindre 100 mais pourcentage bu baax la comme prévision la xayma Et puis peut-être que nous li atteindre ñu à 100 Nous avons am nañ projet lotissement l'autisme à ni en 2018 mais dañ ko reporté ak yi nga xam ne def nañ ko daawoo ak extension te am na yoo xam ne joxee guñ loolu moo tax man atteindre ñu à 100 pour cent nga jël droit de place location sous ak stationnement loolu mu ngi concerner marché hebdomadaire de Ndawen bu ma si attardé wu parce que defe naa ni chaque fois ñuy def orientation budgétaire wax nañ ko loolu aussi vraiment moom moo gën a sooxal suñu recette yi moo gën a sooxal suñu recette yi parce que amuñu collecteur bo xamni <coughs> ñu fourrière fourrière aussi 675 lañ mais pour ba tay ji malay wax dara mais problème parce que gis ngeen avant ñu démarrer def nañu recensement ñi nga xamni yoré nañ ay fourrière li fi ko dina nga fi préfet monsieur le sous-préfet xam nga fourrière c'est réglementé ni ñu koy jaayee le trésor moo koy jaay wala à défaut du trésor le préfet day jël un arrêté nommer quelqu'un mu ñëw di ko jaay at yi yëpp c'est le CADL moo daa jaay supporté moo daa jaay euh, kii bi fourrière mais comme le CADL nekkatul en activité ñu ngi lay ñaan yóbbante la aussi si monsieur le préfet pour que vraiment ñu ne quelqu'un boo xam ne ñu jaay ñu fourrière parce que aussi fourrière yi ñuy denc muy yàgg ça pose souvent problème et aussi nous ñi dañuy am jafe-jafe pour pour nous avons le minimum fiscal minimum fiscal aussi xeetu taxe aussi impôt local la taxe 85 200 le programme woon aussi vraiment recouvré à 100 pour l'impôt aussi impôt bi moom presque soo jëlee suñu recette propre recette propre mooy am am ñi nga ci biir commune bi lay jugé bokkul ak li ñi état bi jàppaleeg yooyu ñu ngi xayma woon 15 millions 500 000 tey ñu ngi am 18 millions 452 000. ça veut dire que taux de pourcentage ça 119 depuis que ñu créé la collectivité locale de Mouri, taux bi mosuñu ko atteindre terrain aussi li tax ñu am ko moy vraiment liguey bi nga xamni autorité administrative bi def nako ak son équipe def chef de village yi l'équipe municipale moo tax ñu am atteindre taux bii nga xam ni mën naa ni soo doon xool ci région de Kaffrine ñu ko am bëriwul dix-huit millions quatre cent cinquante-deux mille ci wàllu état civil aussi état civil bi aussi ñu ngi xayma woon un million trois actuellement nii on est à 1 million soit un taux de recouvrement de 77 pour cent aussi vraiment am nañ ci ay progrès te année bi jeexul légalisation nous avons 100 000 mais recouvrer guñ si mais am na mais comptabiliser au niveau de l'état euh, au niveau du trésor amaan amaan ñu ngi xayma 1 65 267 Nous avons 246 mille 390 qui a un taux de 23 pour cent amaan yi ren néew na amaan yi mooy eaux et forêt ku suñu la amandé téeméer bo jël soixante yi ñu tuddi juroom ñaar fukk yi day dugg ci caisse collectivité locale su dee gendarmerie wala tribunal ñu jàpp nit ñu amande ko ci biir territoire collectivité territoriale bi Idda Mouride suñ la amandé téeméer bo jël juróom-benn fukk yi day dugg ci caisse collectivité territoriale mais fii ren ñu ngi am deux cent foofu aussi dinaa interpeller Antoine parce que fofu déjà des fois nit ñi dañ dul xam man nañu japp tay ji quelqu'un à Idda Mouride aux Eaux-et-Forêts ñu amende ko mu daal dem fay au niveau du trésor mais soo deful attention au niveau du trésor dafa am ñu tuddé recette domaniale ak recette contentieuse ku ñu japp amane ko lo recette contentieuse mais ñoom suñ ko xasee bu bind recette domaniale rek man nañ ko bind recette domaniale suñ ko xasee ba bind def seen dooma ñaar dem directement si keesu état bi parce que euh, ren niñ ma wax nii versé nañ ko comme recette contentieuse mais soo demee si écriture yi deux cent quarante six ça veut dire que dañ koy versé fort, dañ koy versé recette domaniale mais loolu il faut nga xool bu baax a baax quittance pour mën ko xam loolu aussi souvent day day arrivé patente patente aussi moi par exemple ni nga nous ñu ici la ci commune les boutique les atelier yé yi ñi 100 000 fi aussi le recette imprévue moy xéetu nous bo xamni mën na ñëw comme nous ta ñëw Nous 300 000 nous avons 675 418 nous avons ko verser comme amna ko tay doon euh, tibu souf ak euh fo ki zone aménagée puis mature ak taxe carburant 180 000 mais mille mais taxe carburant moy lan moy station bi nga xamni mom moom mooy ne si raay bi xam nga boobu si territoire commune de Mouride lañ ko lañ ko lañ ko implanté ñom dañuy fay par par pompe pompe bu ne dañoo wara fay commune de francs mais comme année bi jeexul xamna fan yi dinañ def ben ordre de recette pour cumuler les liñ yoré 2010 ak 2018 ñu mën fay commune ODP aussi c'est la même chose mooy li boutique yeeg wala par exemple ñiy jaay daal occupé occupation domaine public yi li fay. fonds de dotation de la décentralisation Puis aussi ay ay transfert la état bi moo fiy jàppale. collectivités territoriales yi. aussi état bi c'est des c'est des c'est des c'est des ressources yoo xam ne état bi moo koy jàppale collectivité locale soo boolee lii yëpp sunu xayma budget bi mu ngi nekkoon 55 millions.

am na ay recettes yu bëri yoo xam ni dugguñu wax naa ko léegi lu mel ni luuma bi dugul dugul fourrière yi dugul amaan yi mën na euh, euh, mën na gën a kii taxe sur les carburants moo tax yooyu yëpp aussi vraiment dinañ ci def euh, ay jéego yoo xam ni jéego yu am solo la yii surtout mooy recette fonctionnement yi état bi aussi jàppale nañu aussi ci fonds d'équipement des collectivités locales

li nga xam ne mooy yooyu marché bi. ak yéen liggéey dañuy am 60 pour cent. moo tax loolu am nañ ci yaakaar bu bëri xam naa ni 2019 incha allah collectivité territoriale yu mel ni Idda Mouride dinañ ci gis seen bopp à l'association des étudiants si wàllu ndaw ñi euh, am nañ ay subventions doote kii nañ aménager nañ leen ay aire de jeu nga jël tey jii wàllu santé santé aussi vraiment dot li ñu leen waroon a jox si dotation jox nañ leen ko médicament ou carburant produit d'entretien appui euh, euh, euh, personnel d'appoint aussi la santé aussi foofu dinaa aussi parce que aussi ren collectivité locale parce que ñoom seen objectif avons ñaari poste de santé nous ñu ambulance bindoon nañ ay demande adressé ko ministère de la santé demande bi ñu koy promettre

mais réceptionné guñ ko pour le poste de santé il demeure, inshallah, sous le ministre réagirul dès janvier février ñun dinañ jël suñu budget en tout cas inshallah allah ñoom poste de santé seen euh, poste de santé bi dina am ambulance kooku lañu ñu ci walu ambulance ci walu aussi toujours si walu investissement yi amna lo xamné aussi def nañ ko moy ci walu ndox parce que defe naa ne dinaa si ñëwaat léegi wàllu ndox mi soo xoolee commune bi ren aussi débloqué nañ aussi si budget bi 3 millions affecté ko ONG international bi tudd Ayfer te mu ne Koungheul muy yëngu si département bi si neuf collectivités territoriales bi ñoom dañ ñuy jàppale si ay projet élevage defe naa ne am nañ fi beneen projet bu ko jiitu ñu tuddee ko PRONAM moy waarul xarit bi dañuy commencer commencement bi dañ koy jël par ay groupement lañuy ñuy dañuy démarrer par 10 groupements defe naa ni amna ci ay groupement yo xamni ne jot nañ si ñëpp def ay enquêtes ak yooyu mais démarrer buñu ñu liggéey dañ doon xaar collectivité territoriale yi joxe seen participation état bi aussi day participer ñun def nañ suñu contrepartie def nañ engagement bi 3 millions yo xam ne versé nañ ko au niveau du.

ressources yi ak Les yi léegi ressources yi tey à la date du 28 novembre 2018 situation financière commune bi nii la recette de fonctionnement ou ordinaire ñu ngi am li 54 millions 364 470 ñu ngi dépend euh, recette extraordinaire mooy recette yi nga xam ni moom lay état bi jàppale collectivité locale yi pour mu def investissement mu nekk 21 millions 344 mille 459 soo boolee ñaari recettes yëpp mu nekkoon 75 millions 708 929 loolu mooy recette charge yi aussi moo recette ñoo parce que day am charge de fonctionnement ak charge d' investissement soo jëlee dépense de fonctionnement yi mu nekk 37 millions 380 375 investissement yi mu nekk 19 millions 050 000. soo ko boolee loolu yëpp mu nekk 56 millions 430 375 moo ñuy am benn disponibilité tey am nañ une disponibilité à la date du 28 novembre de 19 millions 278 554 ak situation bi ñu toll ku am disponibilité bu mel nii mën naa ni vraiment euh, disponibilité bu baax la.

dañ ko scindé en ñaari dépenses dépenses de fonctionnement moy li ma leen di faral di wax moy dépenses yi nga xamni mom moy mooy permettre collectivité locale bi di dox ak dépenses investissement moy dépenses yi nga xamni mom lañuy jëmmal mom lañuy tabax ay cases de santé tabax école ambulance ainsi de suite ainsi de suite foofu aussi dafa am lu ñuy guider duñu ñu jékki rek créer benn dépense ni parce que loo gis lu ne dafa am fu ñuy sukkandiku. Collectivités territoriales. dafa am fu ñuy sukkandiku mu ñuy le code général des collectivités territoriales si loolu la ñuy sukkandiku code boobu moom moo wax soo code bi article 202 à 203 moom moo énuméré l'ensemble des dépenses obligatoires yi nga xam ne moom la collectivité territoriale di au nombre de 10 dépenses Ces dépenses yooyu su budget bi ñëwee autorité administrative daf siy béyee parce que mënoo ni yow am nga benn personnel ci misaal ku ne civil te prévoir dans son budget lu koy fay wala nga ni am nga état civil prévoir dans le budget li ñuy jëndee imprimé iris ainsi de suite ainsi de suite loolu lañ tuddee dépense obligatoire yooyu aussi dañ koy reconduire en même temps aussi privilégier les dépenses yi nga xam ni dañuy am benn intérêt bi te nekkuñu dépense obligatoire te dañuy tax commune bi dépense boobu di aussi euh, euh, aussi aussi les compétences transfert cest le le centre, quoi l'éducation. ma histoire di wax ni véritable levier de développement d'une collectivité territoriale parce que nous avons mi ak yaram bi su doxul aussi vraiment niñ aussi si aussi duñ ko duñ ko duñ ko wàññi te incha allah mébétu euh, conseil bi mooy fexe ba vraiment gën renforcer li nga xam ne doon na ko def si wàllu santé bi ak wàllu njàng bi surtout si wàllu santé bi dinañ continuer di appuyer les postes de santé en produits en matériel en produits dentiers en carburant relais communautaires aussi chaque année dañ leen di appuyer ak l'association des handicapés si wàllu couverture maladie aussi universelle parce que nous euh, dañu une décision avec le conseil municipal nous avons allouer un montant de 1 million pour semer des élèves mais li mooy de ma li di wax rapport bi li tax dépense bi exécuté ko exécuter ay problème de coordination am aussi disponibilité à temps des fonds parce que am et yenn école il paraît que xam naa ne après Victor dina si ñëw. il paraît que ñun bi ñuy jël décision yi comment defoon am na ñoo xam ne. defoon nañu am na vraiment lo xamni lu am solo lo xamni ne ko ñuy def nako ko depuis 2014. parce que lu mu collectif travail bi ñu comme comme état mo leen di jappalé des fois pour ñu mën a def ay investissement mais nak li nga xamni am nañ ko ci fonds propre suñu alal biy génné suñu biir commune lu melni ci impôt bi dinañ ci jël renforcer volet investissement pour maintenant, a un investissement boole ko aussi yenn partenaires yi li ñuy par exemple aider Afrique signer une bonne convention de 10 millions pour ñu nous ndox abreuvoir sur que nous saako parce que son volet brille na si ay programme yoo xam état bi samp pour mu les collectivités territoriales et nous xalaat vraiment ñun collectivité locale remplir les critères pour pouvoir bénéficier de ces subventions là Le mel BCI, il y a le PNDL y a aussi un programme bu a commencé à intervenir sur quelques communes dans la région et Inch'Allah, il y nañ ni am nañ yaakaar mën na si yeneen communes le Bakassène le Bakassène L'un rek mooy loo aussi vraiment dañ koy déplorer suñu commune te toujours dama koy wax que man dafa un frein la pour le développement de la collectivité territoriale moy l'électrification parce que sur les 52 villages de la commune il y village boo village qui a été électrifié donc c'est nekk na surtout jamono ji ñu toll nii c'est un frein la pour le développement d'une connectivité territoriale dem nañ goxu Juntóom dem nañ gox joxu Idda dem nañ goxu Touba Guy dem nañ goxu Pire Ndawe

même en 2011 bi ñuy def revue PEPAM le projet PEPAM commune de Mouride bi ñu demee Kaffrine la région bi si commune yi région bi nous ñoo avant d'arrêter, on avait un taux d'accès de 31 en 2011. en 2011 2011 ba a ba tey jii ba def problème réglé wuñ mais biñ ñu en 2014 suñu priorité mo nekkoon dox kon 2014 suñu priorité mo nekkoon dox kon suñu nekkee en 2018 dans les normes priorité action yi nga xam def nañ ko de 2014 à 2018 ndox mo si wara mo ëpp moo si war ëpp soko xolé légui ñu ñëw wal travaux pénibles des femmes wax naa ko légui pratiquement de 2014 ba 2018 ñi fi amoon machine wàll bëriwul woon man naa ne cinq machines wal lañ fi amoon pratiquement yoo xam ni commune bi collectif commune ancienne communauté rurale ak Pinir temps yooyu moo nekkoon Caaxoo euh, Kër Ngay Kër Ndaween Kër Nango ak Fass Cekkeen bi nga xam ne bokkoon na si communauté rurale boobu moo taxoon bi ñuy def élaborer ak junto bi mooy six bi ñuy élaboré programme bi en 2014 nekkoon na jafe-jafe trop si wàllu jigéen moo nekkoon moo tax mu nekkoon en deuxième position ñu ñëw le magasin de stockage aussi moi magasin yi en 2014 aussi qu'on a parce que zone yépp ko joytu pas le position ou électricité aussi moi les zone yépp zone on électricité zone yépp ko mentionné ou école aussi Collecteur école aussi en 2014 ñaari école lañ clôturé woon ci commune bi de Mouride ak Idda Gadiaga légui ñu ñëw ci RDG aussi ak terrain réglementaire 2014 aussi terrain yi bëriwul woon man naa ni pratiquement ils Mouride la moo fi amoon terrain en 2014 nga ñëw aussi wàllu enclavement mooy wàllu yoon yi yoon yi aussi

ñu courant bi moom comme manqué na si zone yëpp zone yëpp ko wax nañu indil courant bi moo nekkoon deuxième position avec 35 ñu nga xam ni 35 points ñu ñëw troisième position mooy wàllu machine wàll yi wax naa leen ko léegi ñu ñëw quatrième position ak wàllu magasin yi ñu ñëw clôture école yi mu ñëw juróom meelu position wàllu xale yi ak stade ak yooyu mu ñëw sixième position tabax ak defaraat salle de classe septième position

ñu ni action yi def fonçage forage ak d'eau de fonçage forage commune forage forage 200 millions Ce Ce budget budget 200 millions comme réalisation collectivité territoriale démembrement état la démembrement état là, parce que le lu 2014 2018 2014 5 forages lañ un ci biir commune avec 16 villages yu am mais en 2014 2018 tay di réalisé 4 forages réalisés ben Missirah Omar Sarr ben Pire Ndaween ben Sadio ben Keur Ngay ak c'est en cours de réalisation à 5 Tabat comptabilisé si avez addiction d'eau 2014 2018 on a desservi 34 villages Comme donc on a un taux d'accès de 98 Comme donc vraiment de 31 à 98 pour taux de réalisation extraordinaire tey maintenant au niveau du département de Koungheul à ah, Sumo si collectivité territoriale yi ak taux d'accès bi defe naa ni taux même keroog sax préfet mu ngi koy wax mu ni euh, conférence régionale territoriale bi ñu amoon fële au niveau de de Kaffrine presque soo xoolee yeneen communes yi ñoom ñoo ñu xaw a parce que dañuy jël en terme de département parce que l' arrondissement de Idr si arrondissement yi taux d' accès bi mu am kenn amu ko te Idr mu joué ni si bu am solo soo jëlee wàllu jigéen ñi. action de 2014 à 2018 nous nañ ci 18 villages qui ont ne am nañ 10 villages yo xamné des des la y 8 villages qui ont commune bi mom jox ay si vous ndaw 2014 à 2018 clôturé nañ ci des terrain au niveau du chef-lieu aménagé nañ ci aussi 3 aires de jeu soo jëlee wàllu clôture école yi wax naa ko léegi nee 2014 avant 2014 ñaari école rek lañ clôturé woon mais 2014 2018 clôturé lañ quatre écoles mooy école de Touba Lampo école de Thiaxo école de Ndoum école de euh, Khourdan cinq écoles la sax dama l'école école de Pire On a nekk cinq écoles clôturées si wàllu insuffisance salle de classe faut aussi action yi nek pour nous construire wala ñu réhabiliter six salles de classe réhabilité nañ ko plus logement moy deux quatre salles de classe à Khourdan deux salles de classe non deux salles de classe à Khourdan deux salles de classe à diokhul et ak deux salles de classe à Diamaguène nous ñu tabax ñaari salles de classe spécifiques dans le cadre du BCI budget consolidé des mu nek fële à Ngaye ak aussi am na loo aussi dama ko fàtte def ci rapport bi mooy la construction du CEM CEM un soo leen xoolee mur de clôture la commune. la commune ñaari salle de classe yi ñu njëkk am ak bloc administratif c'est la commune et pourtant du domaine de compétence commune mhm. donc loolu aussi c'est à à souligner si la santé santé bi aussi nous nañ dañu le réhabiliter poste de santé créer poste de santé ak doter ambulance au poste de santé yàlla def nañ ni on a réhabilité benn poste de santé créé nañ benn poste de santé à Ndoum ak aussi ren doté nañ le poste de santé de Ndoum en ambulance si l'électrification électrification bi aussi foofu moom vraiment mooy li ñu waxoon rek électrification bi juróom-benn village lañ commencé électrifier c' est l' électrification en cours mooy yi ngeen di gis nii avec le PUDC ay Touba Gouye ay Diallen ay Darou Wolof ak ainsi de suite enclavement bi moom amul benn action boo xam ni def nañ ko fi parce que vraiment c'est un projet boo xam ni moom moo ñu sut parce que mooy yoon bi gars yi wax diggante bu jële bi jugee euh, Koungheul dem ba romb zone Kassé woowu yooyu xam nga zone yoon woowu yéen euh, pro c'est un projet boo xam ni intercommune communal la parce que ñeenti commune ñoom ñoo ko seq mooy commune Koungheul commune Idde commune makkay commune Guène même sax la commune de Mbour wal magasin de stockage aussi So, xoolee 2014 ba 2018 aussi tabax nañ ci juróom-ñetti magasin 2014 2018 juróom-ñetti magasin manque de financement aussi waaye gars yi nañ ko action yi nga xam ne nañ ko. d'ici 2019 bi Dès dinañ ko mën réaliser ak yoo xam ne c'est à temps. terme entre par exemple d'ici 2019 2020 ba 2021 dinañ ko mën réaliser comme administration c'est une continuité c'est l'idée qu'on a ne defoon il faut ñu agaler ko li Nous, des ñu beneen équipe su ñëwee mën ko àggale si wàllu njàng mi si wàllu ndox mi waxoon nañ dañuy def addiction d'eau Qui c'est à court terme mooy njegeen faafa am nañ yaakaar ni la fin d' année bi projet bi dina am na lay caameen kooku nekk na priorité pour la commune pour 2019 parce que moi, le seul village boo xam moo des pour collectivité bi pour ñu am euh, taux cent pour cent bi moy château d'eau pour Ndour Ndour ñep xam nañ ni vision mondiale mo leen tabaxalon sen château d'eau bi seen château d'eau bi ban année la chef de village. waaw 2001 2001 ba 2018 gis nañ population Ndour nu mu yokkoo mm. te vraiment forage bi manatu la jox Ndour parce que ñun déjà def nañ fa ben addiction do yóbbu ko fële euh, Santhioudoune depuis 2017 mais addiction do problème la am pour pompe bi mën a yëkkati ndox moo tax foofu commune bi aussi ñi ngi xol nan lañuy défé pour que Ndoune vraiment mo am château d'eau boo xam bu mengo Ndoune actuellement bi mu ñu mu mu toll si walu santé fi à court terme wax nañ dinañ jot ci idée muy ambulance bëgg nañ aussi à moyen terme parce que aussi feeñ na sax ci conférence régionale territoriale bi ñu doon def ci wàllu santé pour que commune bi ñu mën a bañatee am jafe-jafe ci wàllu wér yaram ñu créer deux postes de santé benn bi à Pire Ndaween ak benn bi zone Kasewo soo xoolee zone Kasewo ci 19 villages amul poste de santé des fois ils se déplacent même normes ils ñu wax pour accéder au poste euh, aux soins de santé ça pose problème dans les villages yoo pour ñu accéder au au poste de santé def nañ presque ay 18 km pour jëlé lu mel ne ay Médina Fass Keur Gorgui jël lu mel ne Nguy Sewa ah dëkk yoy ak ak Amdalaay Jaameen seen distance ak kuréel bi ñuy parce que ça fait presque ay 18 km ñu ni aussi c'est à moyen terme ñu tabax logement maternité pour Idda Mouride tabax maternité aussi pour Ndoul tabax aussi maternité rurale c'est quand xooloon PLD bi génne woon nañ ci même ba autorités yi accordé woon ko pour Kër Ngay mu am maternité rurale loolu moo nekk si wàllu santé yi nga xam ne moom la programme programmé à court et moyen terme si wàllu njàng mi aussi foofu tamit à court et moyen terme mooy clôture école Jokkul Wadeen clôture école Justo clôture école Pirnango

fan rek ñu commencé euh, terrain bi maire euh, la ñu terrassement ñu terrain bi fa c'est pas des camps réglementaires aussi bëgg nañ changer électricité aussi li wax rek électricité euh, orientation ay gis si budget di di vraiment ñu lii li ñu def nii li ñu présenté nii dafa dafa ne loo xam ni ébauche la rek mais loo xam ni dañ ci sukkandiku il faut que population bi seen bopp ak acteurs yi fi ne ku ne joxe ci sa point de vue parce que loolu moom moo ñuy permettre ñu am un document boo xam ne sera un document participatif parce que damay euh, faral di ko wax daje yu mel ni yomb daje yu mel ni yomb son soo xoolee le législateur li mu programme mooy si calendrier budgétaire budget bi ni muy tëddee bii rek la population bi am occasion pour wax sama budget nan lañ koy defal parce que voté budget bi naam man ngeen a ñëw toog seetaan mais doo leen voté conseil yi ñoom ñooy voté donc fii c'est un moment boo xam

loolu la amoon lu may présenté je vous remercie conseiller ñëpp kenn ku nekk ku war a dugal sa loxo rek sa loxo dugg na ci ba ngeen yegg si fii recouvrement bi aussi taala wax na ko taxe rural bi daaw yaakaar naa ne am na liggéey bu ñu ci def ren aussi bu ci yàlla àndee même liggéey bi dañuy reprendre bu soobee yàlla liggéey bi ñu fi defoon daaw ni ko defee woon dañuy xool lañ moo peut être indi woon ay gàllankoor parce que du ñàkk xëy na am na ay gàllankoor yu ndaw yu amoon mais yooyu yaakaar naa dinañ ci wut ay pexe ba nga xam ne vraiment li ñu li ñu xayma yàlla dimbale ñu yegg ko jàmm ak di encourager aussi chef du parce que aussi euh, dañuy collaborer bu baax ak euh, mairie bi di collaborer bu baax aussi ak administration territoriale parce que mënoo nekk borom dëkk mënoo nekk borom dëkk décret bi nga xam ne moo tax nga nekk borom dëkk décret boobu moo tax sous-préfet nekk sous-préfet nga woon sous-préfet ginnaaw woon collectivité territoriale ginnaaw ñun ñëpp dañu war a waxtaan parce que ñun ñëpp nguur lañ fi nekkal kenn ku ne fa nga nekk rek nguur moo la fa teg te lan la fa tegee askan moo tax ñu teg la fa idée murit bu am loon murit bu am loon ay nit du am maire arrondissement idée murit bu am loon ay nit du am sous-préfet mbir mi nag noonu lay dox nee naa nag politique moom bu jotee kenn ku ne sa mbubb nga sol bu la neexee nga sol bu vert bu la neexee nga sol bu ñuul bu la neexee nga sol bu bleu bu la neexee nga sol bu orange mais bu jeexee ba ñu installé conseil bi liggéey moo des liggéey bi nag mbub mu weex lañ koy solee mais boo buggee sol beneen bu gën day jaxasoo bu politique jotee nag kenn ku ne demal politique ñun nag politique wu wuñu mais la ci xew intéressé la bu ñu gisee préfet ànd ak maire ñu ne ah préfet maire la ak déet préfet mënul dem bàyyi maire maire aussi mënul dem bàyyi préfet il faut ñu liggéey ensemble mënul nekk nguur la fi nekkal bi nekkal fi nguur maire mënuñu woon ginaa bi mënuñu ko woon ginnaaw léeg-léeg bu ñu la gisee ak maire ñu ne ah préfet wax rek lay wax préfet day liggéey ak maire maire day liggéey ak préfet bu élection kenn ne fa nga far am nga droit dem mais bu jeexee li des collectivité territoriale bi nag ko confier histoire bi histoire bi 2014 diw diw ci conseil diw diw ñoo nekkoon chef du village diw directeur fi kenn dañ ci am sa responsabilité diw fi préfet donc kenn ku ne ndomb ba nga ca wax ak lan la ca dégg fexeel nga góorgóorlu affaire bi météo kenn ku ne rek vraiment li nga war a def boo ko defee rek affaire bi day yokk te loolu mooy aussi développement kenn ku ne dañ ci dugal sa loxo acteurs yëpp jigéen ñeeg góor ñeeg mag ñeeg xale yëpp chef du village ñëpp kenn ku ne dugal sa loxo waaw te loolu aussi vraiment ñun loolu la ñuy encouragé loolu ci loolu lañ leen di ñaax te loolu aussi ci loolu lañ leen mën a a

Euh, wax tuuti euh, marché hebdomadaire bi aussi yaakaar naa wax ngeen ko marché hebdomadaire bu bu Ida Ndawen Talla wax na ko affaire bi doxul loolu nag ah, souvent damay faral di ma ko wax dama dama faral di ko wax dama ne souvent am na loo xam ne bu amee wala buñ ko waxee dañ koy jéegaane dañ koy wuti mais am na loo xam ne moom marché Ida hebdomadaire Ida Ndawen

waaw monsieur le maire kaaw bi da ndawen yaakaar naa waxoon nañ ko fi daaw mm-hmm. waxaat nañ ko te ba léegi solution am parce que yaakaar naa ne man balaa ma fi ñëw conseil municipal bi am na ay jéego lu ñu doon def te jéego yooyu yaakaar naa ne gis nañ ko kenn ku ne teg nga sa bët yaakaar naa ne bu dee conseil municipal bi bu doon liggéey doon def ay jéego yaakaar naa ne mandarga yi duñ fi ne man mandarga yi fii laa ko fay yaakaar naa seen liggéey ak seen xarañte moo tax ñu décerné leen mandarga yi loolu nag dañ leen ci encouragé di leen félicité di leen wan ne aussi ñu ngi seen wet dañ leen gunge fépp fu ñu leen war a gunge rek bu soobee dinañ ànd ak yéen luñ ca war a def aussi dinañ ko def fuñ fa war a taxaw dinañ ko dinañ fa taxaw luñ ci war a wax bu soofee la bu soobee yàlla dinañ ko dinañ dinañ dinañ dinañ ci wax bu dee am na ay problème solution locale buñ ko buñ ko déclenché ñun ñëpp ñooy ànd wuti ko bu dee solution bu ñuy jégaane nationale ñun ñëpp ñooy ànd xool yoon waaw ci loolu daal laa bëggoon comme euh,